maa ngi lay ziar bu wér a wér a wér ñu gëj laa gis waaye tey ñu gis la ci tiis bi nga xamante ne dal na ci monde làmb rawatina képp kuy doomu Pikine mm. te ko wax Bathie Seras wax doomi ginnaaw raay mm. tey ban yëg-yëg nga am ci ci ci waaw sama yëg-yëg moom du si si sori mm. damay sant keebaa bu baax a baax li def ñëpp gis nañ ko Abdoulaye tamit ku def tamit ñëpp gis nañ ko comme Kéba lim ko jàppale Pape Sarr da see jàpp man tam awma dara lu ma si wax mbërum ñëpp la moo tax ñëpp a ngi ñi tase fi waaw man daal lu ma si wax daal Kéba moom lu mu si jàppee dafa dégg dayoo ak Pape Sarr lu mu si jàppee dafa dégg waaw maa ngi koy naanal nag waa Sénégal lépp lépp lépp lépp lépp ñu sigil ko ndegale yàlla xare ko si àddina yu gën a kawe bi soobee yàlla. parce que ñu bari dañuy wax ni bu ñu amoon ñu mel ni Kéba ci dëkk bi euh, réew mi dina toll fu sori ndax gis nañ xale boo xamante ne tawat na di ñaan ndimbal mu ñëw jàpp ci ànd ceeg moom ba yàlla suñu borom dogal li mu dogal. waaw li may wax lu bëri quoi boo gisee yaaw ngi taxaw man ma taxaw fii Kéba moo taxaw ma taxaw ma taxaw fii loolu rek laa si wax quoi. waaw oh. dëgg yaaw maa ngi lay waaw maa ngi leen sant yàlla bu baax. nekk doomu Pikine euh, Abibulaay génn àdduna sa diggante ak moom lan la. waaw Abibulaay ñoo bokk mu nekk mbër ma nekk mbër dañuy bëggante suñu biir mais nag dama nekk feer dafa nekk feer boo xam ne dafa yàgg na si nii rek mais nag yàlla na ko yàlla yërëm ko àjjana ndaxte boo gisee Kéba mi ñëw taxaw si affaire bi nii Kéba dama ko woo téléphone mu jàpp min ma maa ngi Pikine ba mu nee maa ngi Pikine rek xam naa ne mu ngi si Abibulaay man xam naa loolu. mais bu ko neexoon du dox si yooyu Ismaila Kane baaxaayam bii nii day soog a fës nii rek mais yàgg na def xam nga am na ñoo xam ne nii xam bàcc mu taxaw yaaw jaal taxaw duñu dox si lu ñàkk feere feeraa toll seen ko mu ñëw jox ko loxo nu yónteeg moom far nag bàcc taxaw xam la ba ne ko grand bi jantal grand te bu ko du dox yooyu wax nag moo baax am na ñoo xam ne dafa ngisal dañ koy def am na ñoo xam ne duñ def dafa ngisal mais Kéba mi yal na ko yàlla jàppale. Abibulaay mi yal na ko yàlla yërëm xara ko ajana yu suuf seen ko bu baax si daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam métti na loolu nag mais maa ngi ko jaale waa Pikine ñëpp di ko di ko jaale nag monde lamb nag di ko jaale xam nga ñëpp ñëpp man daal monde lamb daal bàyyiwul kenn ñoom ñu baax na koy ziar bu baax a baax Abibulaay daal yal na ko yàlla yërëm xara ko ajana mais grand Kéba moom vraiment moom ku dee sa bàmmeel quoi ndax kenn waxuma man maa woote ñu ne moom mu ngi Pikine ba mu ko waxee man xam naa ne mu ngi si affaire bi nga xam ne kon boog moom taxawoon na si naaj maam ndax dama koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla yërëm xara ko waaw di ko jaal nag Ama Baldé bu baax a baax ndax ku ne Abibulaay xamee ko si Ama Baldé am na kon boog ñu ngi ñaan yàlla yal ko yàlla yërëm xara ko ajana métti na loolu mais sant yàlla quoi di ko jaal nag écurie yëpp ñëpp maa ñoom ñëpp daal maa ngi koy sant a baax dina ko siyaar bu baax a baax daal ngi lay siyaar ndax daanaka mën nañ ni Pikine kenn mënu koo tudd te doo tudd Pape Sarr mhm. tey ñàkk koo xamante ni euh, njariñu làmb la woon ñàkk koo xamante ni doomu Pikine la woon euh, ba yan témoignage nga ñu mën a defal ca diggante ak Habibou Laye. waaw lii dama koy jaale ay mbokkam jaale ko xaritam jaale ko tamit ki ma koy jaale mooy kii muy Kéba di ko jaale Pikine yëpp démb deux heures du matin la ñu tàggalikoo ma ak moom kebaa dafa dem fa ma baay Kéba Kanté bi tey dama koy gërëm parce que tey jii lañ ko waroon a opérer te lépp ñàkku Kéba Kanté la. xaas bi mu ngi woon sama poos bi ñu yeewoo ci suba teel laa yëkkati la yëkkati xaalis bu weex tàll lu koy faj lépp man la ko jox dégg nga pour ñu xëy 11h pour opérer ko yaa ngi may dégg 2h du matin euh, mi dem minuit ñun ñaar ñun ñaar man moom Abdou Salaam Souran ñoo bokk reer bi ma jógee foofu ci kër gi deux h di matin ma ne xaaral ma xëppoo ndox suñu kër xam nga si laa ñëw ma woo Kéba Kanté bi woo ma vocal ma. mu ngi ma vocal deux heures du matin ma ne ko dama doon nelaw bi ñu waxtaanee ci loolu si la may ne forcé leen gaaw suba ngeen yóbbu ko moom Kéba bi taxaw. billahi man daal maa ñëw di connecté ci kaw rek bi ñu julli ba pare may sangu si la ma benn booyam woo pour man oto bee ñëw pour ñu yóbbu ko si lañ ma ko jaale ku gëm yàlla dem na. koo xamante ne du onk billahi wallahi talaay xale bu baax xale bu yaru yaa ngi may dégg xale bu yaru. man damay gërëm nag booyam yi nekk fii ñoom Souran Pape Souran munoo ma booy koñ bi. Pape Mbacke Gora Ndoye Abdou Salaam booyam yi su ma limee booy quartier bi billaahi saa yoo ñëwee di nga gis kii di ëpp kii di bës kii di fomp billaahi wallaahi mu nekk ci métti bi rek bañ won ni booyam yi lii dafa métti. muy koo xamante ne booy bi guerrier la daal parce que métti na torop torop torop torop xam nga lim lay wax nii. kii moo ko jël keebaa ban bi ma ñëwee dafa ma woo téléphone ma ñëw fekk ko moom cundung ak booy yi Kéba moo ñëw dugal ko si kaat kaatam ñu ngi ko dugal si clinique bi boo jàddee nii Kéba fa la ko njëkk dugal bi mu ko dugalee ñu ngi xaar kayit yi si la génnee cinq cent mille na ma am yóbbu leen ko xaalis sama poos la nekk bi ñu bi ñu demee ba nga xamante ne sept heures du matin la ñu war a jóg man si lañ ma woo tàgge ma ko xam nga ma ma si ñaanal di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana su ma woon su ma lépp la woon billaahi man mii man maa ñàkk maa waa Pikine xam nga di ko jaale ak lu làmb yëpp waaw di wax autorité pikini daal yu mel nii bu mu leen dalati autorité Pikine yi laa wax maa ngi koy commencé ci maire de la ville laay njëkk wax moom laay njëkk dal si kawam ak yeneen maire yi nekk fii yu mel nii bu mu leen dalati waruñu seetaan ku mel ni nga xam ne tey ñëpp xam nañu pikin la dëkk ñoom ñu nekk fii ñu dénk leen suñu Pikine bi ñuy seetaan xale bi ba mu mel nii. lii nag du dama koy wax nag parce que ñun dafa am lu ñu daj ci feebaram bu feebaram bi ñun xamuñu lan lañ leen fi tegee dañuy bàyyi ba yu mel nii am ñuy jël fii di fi takk ay nag ak di def seen affaire yooyu dégg nga. nit ñi muy mbër ak keneen ak keneen nañu nañuy nañuy jàppale seen mbokk yi lii baaxul. ñun dañ see dama man daf ma dama dam cee daj lu métti moo tax may waxee nii ah. yaa ngi may dégg suñu mais suñu suñu suñu autorités yi nekk fii amaluñ ñu benn njëriñ benn njëriñ amaluñ ñu ko parce que lii nii dafa bokk ci seetaan dégg nga dafa bokk ci seetaan dañ ñoo dafa dañ ñoo autorité Pikine nag laay wax ñëpp bàyyiwuma si kaw laa commencé ci maire de la ville ba wàcc si suuf benn Pape Ngom Pape Ndong moo jël jël ko en charge yóbbu ko Tunisie bi mu ko yóbbee benn tànk bi wër na benn tànk bi di waat ñu nekk ci rek. dégg nga mel na fii amul autorité amul dara pour lan te booy bi ñoom seen élection yi bu jotee chaque instant yaa ngi yaa di fekk ci wetam seen wet xam nga loolu moo war a jeex fii yaa ngi moy dégg est-ce que ma koy wax Macky Sall ñi ngi fi teg fii muy waa Pikine dara lañ fi deful duñu xam xama duñu xam nga duñu def social duñu def dara Keba Kanté Almadi la dëkk Birane Ndour Almadi la dëkk ñoom war nañu ruus sax Keba kante bii di jóge ba Almadi ñu koy jël ñuy ñuy ñuy def lii autorité Pikine yëpp laa dal seen kaw man Pape Sarr maa ko wax dara la ñu deful fii Pikine nañu waroon nañu taxaw xale bi bu ba bu yàgg. man maa man Pape Sarr man maire de la ville laay commencé ci kaw wàcc si suuf no bu ma wax bu ma wax damay wax sama dëgg. Massa Pape Massa Roma. Portugal, cultura. taalibe suñu Fallou taalibe suñu ak Cheikh Mbacke mu rafet la dundam ñu ñu rafet moo waral mu demee nii rek saa su ne saa su ne waaw gis nga leen at naa ngi nii rek ñu ngi nii xam ne yàlla doomu aadama fu nekk leen ñu waaw coow mi mu ngi si biir mu ngi si biir dugg si Thank you. 덤벼야 세시 스케르도 스케나 찍어서 일단은 조금은 쓰는 가이 이렇게 해서 이렇게 보고 야라는 제대로 다르고 싶만 가라 야라는 야라는